naa foofu ay manifestant ay booy yu taaloon pono mhm. euh, si kii bi si route bi baare ko mhm. mais bon man bu ma ñibbee ba egsi na ma sama benn xarit euh, envoyé ay image mhm. ak ay vidéo moom il était sur place donc euh, gis nañ foofu benn xale bu décédé ak bugguma wax turam parce que man vérifié wu ko personnellement mais am na décédé parce que vidéo yi ñu ngi koy kenn ku d' mooy ki ñu évacué hôpital. waaw ku ñuy évacué hôpital mais keneen ki malheureusement yaakaar naa ne dee na puisque soo xoolee vidéo bi sax blessure la am au niveau de la tête. d' na ba foofu foofu ko war yëpp kii na deret. d' accord ñi dañ koo dóor bal. waaw loolu la ñuy wax parce que am na ay xale sax yore ay duy ay duy. Mhm. ay duy euh, bal en affaire. d'accord euh, xale yi lañ leen doon manifester ñoom. bon ñoom manifestation bi il paraît que c'était pour euh, ñu mun a restituer passeport Ousmane Sonko mu mun a dem faju ji. waaw mhm. ah, c'était surtout ça. d'accord ba léegi ñu ngi manifester dafa mel ni de. waaw waaw ñu ngi manifester parce que bu ñu kii bi amee décès jeune boobu. Mhm. Euh, ñeneen ñu demuloon sax ñu ngi commencé di génn di dem. di dem ci lieu bi ñu doon defee manifestation yi. d' accord d' accord ñu ngi lay jaajëfal di la wax euh, Feeling Dakar boo ci amee information yi gën a leer mën nga ñu woo. voilà mbokk yi mi ngi noonu mu nekk ab manifestation bu méttee métti nekk fële ca Bignona ca Sikicoor ay xale rek ñoom rek ñoo doon manifester ngir euh, ñu daal di rek jox ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko digital Pastef euh, passeport am ngir mu rek euh, daal di dem fajo yi ca biti réew ndax jamono ji daal Ousmane Sonko jàpp na ni ay wérgu yaramam dafa daal di sooxe mu nekk koo xam ni rek moo nekk fële ca Bignona moo ñu daal di rek jox boobule xibaar kooku nag mu ngi wuyoo ci tur bu ñuy wax moo di Korka ba moom rek mu mujjee ñàkk bakkanam euh, muy mel ni bu ñu sukkandikoo ci image yi nga xam ne jot nañ ko sensibilité bi moo tax du ñu leen ko won waaye bal lañ ko dóor ci bal bu ñu sukkandikoo ci information yi ñu jot waaye itam ak vidéo bu ñu euh, gis ni am na keneen koo xam ni itam ma nga fële ca Sikicoor moom itam dañ ko daal di rek gaañ ca biir booba ñu daal di koy rek jàllale wala sax ñu daal di koy évacuer fële. Euh, ca l'hôpital ya waaye lu ci mën tam rek da ngeen jàpp ni jamono ji euh, xeex ba ma ngay wëy di tar fële euh, ca sikki coor ca Bignona ngir ni rek ay jeunes ñoo bëgg rek ñu daal di restituer maanaam ñu jëlaat passeport bu Ousmane Sonko daal di koy delloo njiital Pastef ndax moom day dafa daal di rek tawat gannaaw bi nga xamee ni doon na wuy ji fële ca tribunal ci dossier bi nga xamee ni rek moo ko opposé ak ki nga xam ni moo di euh, Mame Mbaye Niang ci dossier de diffamation ñeel euh, vingt-neuf milliards yu Prodac ñu fàttali rek nii moom Ousmane Sonko gannaaw bi nga xam ne rek doon nañ ko yóbbu fële ca tribunal dañoo njort ni rek dañ ko daal di sotti ab liquide boo xam ni rek moo tax wérgu yaramam daal di euh, sooxe moom Ousmane Sonko ba ci ki nga xam ni rek moo di awokam di euh, maître Ciré Clédor Ly te jamono ji ma nga ca tugal ñu jàpp ni moom itam dafa daal di rek dem faju ji ngir jotaat euh, wérgu yaramam xibaar yooyu la ñu jot waaye bu ñu fàttalikoo rek ñi nga xam ñoo bokk ci nguurug Sénégal maanaam ñi nga xam ñoo yor dogal gi buum yi nga xam ñooy buum ak ñooy buum yi daal daal dinañ jàpp dañoo war a defaat rek beneen contre expertise maanaam defaat beneen saytu wérgu yaramu Ousmane Sonko ci ñenn ñoo xam ne rek ñooy ay médecins yoo xam ne daal dinañuy am ci ñoom ak wolu teef ngir rek ñu mën a jël ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko joxaat ko ay euh, passeport am wala sax ay droit ngir rek mu daal di euh, génn ci réewum Sénégal daal di dem euh, fajoon moo loolu moo nekk xibaar yi nga xam ni rek daal di nañ koy jot léegi nii daañu leen ci digtal li ci toftal fële ca sikki coor ca Bignona. del yaa ngi Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique